dénkaan lii may dénkaan nag yéen ñoo bokkal daara du daara saxaaba la ci yéen la jëm ak bépp taal bi bu ko nag te jëfe ko neex la ak bépp jëf bu ko dégg te jëfe ko neex la waaye yéen ñëpp saa jox ndigal maa ngi ñu ko jox loolu moo di moo di ñun ñëpp bëgg noonu marché wàcc ci tuub dellu ci yàlla suñu borom ci jéggalu ko ak ragal ko ak jaamu ko ak wattu ay tereem kem suñu kàttan ba noppi nag te dalal xel ci yëngu-yëngu yi ak xew-xew yi ak jàngoro yi ak musiba yi ak balaa yi yàlla na ko yàlla teggi ci fekkul na ko yàlla na ko wàcc yàlla na yàlla wàcc bu dee jàngoro yàlla na yàlla wàcc saafaraam te xamal ko julli ji xamal ko billet yi ba ñëpp mën caa xeetali ko bu dee balaa yàlla na ko yàlla fegal te musul mu jëm musul ci bépp jullit bu dee musiba ñu wàcc yàlla na ko yàlla fegul te fegal ko mboolem jullit yi fegal ko mboolem adduna bi ndax jàmm rek ma baax bëgg na ngeen daal sa xel seen xel baax fu waay ma ne te sukkandikoo gëm yàlla تحمل الجميع أغراضكم ويدم اللي بجلد تساهرن تبايتهم تأدنا تأدن على آخران في الواقع ما أنك نأخذ لي على المام مولف عندي تلون نتريهم بتسويانا في عالب سيدقي عليه مسلح كم سكتا ما نساكوي أغلان يبقي تسبب أغراض أغراض قد يكون ساكو تيالا تبان شاهد دفكني أغراض كل يالا تجام يالا تدار خيرنا بباخ te yéen ñëpp na ngeen góorgóorlu si jaamu yàlla fu ngeen mën ne te xam ne fu ngeen mën ne yàlla moom barab moom suuf si moom ña fa ne moom lañ yéen ña fa ne kon nag fenn fu su wërta jaamu yàlla amul ab jullit fu mu nekk day jaamu yàlla te nekkal fa yàlla gannaaw loolu ngeen am pastif ci seenu teel bi ci sëñ Tuubaa ndax sëñ bi kenn kenn kon la bale moom yaa ko wax wala say wiir waxal la ko jurlu ci yàlla waaye nag la la ci jëriñ yaa ko jëfal sa bopp adduna nag naka jekk nii la baaxoo day neex ak naqari ak jàmm ñooy ñooy sell ñooy ñooy sant mi ngi mel guddi yeeg bëccëg yeeg naaj yeeg tàngoor yeeg sedd yeeg ngelaw yeeg yëpp noonu la day jël sant waaye na nga doon julli xàqan te wëkkilu ci yàlla te gëm yàlla te jaam yàlla digal maa ngi digal sama bu di leen digal yéen ñëpp kenn ku xëy bala ngaa def dara loo yàkkamti yàkkamti donte ci guddi gi wala ci suba gi na nga jàng kem da ci alxuraan te jàpp ba sa julli ñaari rakka wala boo julli farata ba noppi nga julli nga jàng alxuraan kem la nga man te saxal ko te def ko ngir jaamoo ko yàlla boo jaamoo yàlla ba noppi nag loo nga teg ko xasaa yi di ngeen fonkaat ko digal naa leen képp ku ko man te sag jot may la ko bis bi muy guddi mu bëccëg na nga fas yéene sax jàng xism la baraar xudaat xam naa ka idil fu jaarit boxaat te ñaan yàlla suñu borom lépp ci sëriñ bi fas jëme ko ci boppam jëme ko ci taal bi jëme ko ci jullit yëpp yàlla defal ko lépp ci lu tey fegu ci musiba àddina ak àllaaxar yàlla musal na ci te musal ci ñëpp koo xam ne kii loolu amul jot tamit am na xasaay gon allahu xayun samadun wa baaxi subhanahu soo kanafin wa waaxi wa nahnu fi kanafihi manihi min kulli sarrin wa asansanihi mustamsikina bil xiyaasi ahmada xayri lanaami muntahan wa mtudaa man xaalaha fi samani lwabaa'i amanahu allahu min albaa'i yenti bay yooyu na ngeen ko fonk te xam ne wax sëñ Tuubaa dellu gannaaw te ak ñaanam yàlla du ko delloo gannaaw yàlla du ko delloo mukk na ngeen sax ci sëñ bi te doyloo ko te sax ci mu digal boo jaamu yàlla bu sañ nga ñaan yàlla loo bëgg tamit lu ja lu jaadoo ñaan te sëñ Tuubaa ñaan na lépp fàggu na lépp xasaay gi ñu wax sindi diit kasaalika na ko noonu na ngeen ko fonk lépp lu ma te fegu sëñ ko te fu mu ko war a na fi ci yonent yi saaba yi ba lépp napp na te loolu ku si ku koy jëfe te ànd gëm incha allah dang ci si jariñu nit ñi lu mën a doon gëm ak rek moo koy jariñ ndax yàlla mi ni suñu borom mi ni bind nañu jaamu sax jaamu gi koy jaamu gis nu ko gëm gi rek a ñuy jariñ yonent bi sallallahu alayhi wasallam ki mu yónnoon ci mboolem julli te beneen yonent dootu wàcc mukk fi ak la ko war ñu jàkkaarloo ne moom te gëm ko ñoo jariñoo waaye ñu jàkkaarloo moom te gëmuñu ko sax mënuñu jariñ ñoom kon na gëm gi dama koy jariñ kon na ngeen rafetal paste bi ci diine ji gëm yàlla ak yant bi gëm lislaam gëm alxuraan te di ko jëfe gëm sëñ Tuubaa te di ko ta te topp ay ndigalam coow leeg wax jeeg mortat yeeg yëpp loolu jertefali moo ko àdduna ànd ni nit ñu nit ñu baax ni ñu doone lu baax di ko doonante muy dem ñetteel si noonu la ñu doon doonante loolee faw ñuy dund sunu sant bi Muhammad sallallahu di topp ndigali alxuraan duñ ci jóg mukk waaye ñu koy weddi ak soufel duñ ci jóg muk sëti xaarooda yaa ngi fi sëti sëti firawna yaa ngi fi sëti nemroos yaa fi ak ña ak ña dàqoon weddi ñëpp xaaroona to teel bi Moussa wante daa mortat mortat du dara alkor alkande ila bok ya bok bok ci yàlla génn ci bok ci kon yaa ngi ci yàlla musal kon do jot loolu jot lu kéemaan wedd deug bu ko doon toxal kon alquran ne as na naa bu yalla te mu ëpp yoon weddi dëgg bu tax dëgg taxut kon lislaam jóge na fi bu yàgg weddi lu ñaaw ñaaw du du wàññi dara dëgg boo nekk ci dëgg bul ci am soxla lu wax ja ñaaw ñaaw bu ci am lu jëf bu ci am nekkal ci dëgg rek ku dëgg yàlla nga ànd yow te ngeen ci muñ wastahinoo bi sabri wa salaati fa innahaa la kabiratun illaa alal xaasiin da ngeen di ko muñ ak julli muñ dafa bokk sarti jullit muñal du lu metti rek bu neexee da nga muñ bu naqaree da nga muñ boo wéree da nga sant boo wéree da nga muñ te sant yàlla julli lépp ak sant yàlla lépp ak jaamu yàlla mbégam ak jaamu yàlla aw aw tiisam ak jaamu yàlla bu ngeen ko jàppee noonu dara seen yoon du ci te lépp yàlla na leen ko fajal na ngeen dara xel seen xel ci jàngale yi ñuy wax yëpp te xam ne yàlla mi wàcc jàngale moo wàcc saafara yàlla na yàlla wàcc saafara su koy saafara ba julli julli yëpp mën cee xeetu bindef yëpp mën cee xeetu ndax xeetul ko àdduna moom yëpp mën na ko bokk xeetul ko àllaaxira jëru koy maye kon yàlla mi wàcc jàngale yàlla na wàcc saafara yëpp musiba yeeg balaa yàlla na ko yàlla fekk ci fépp ak ci ñëpp man naax saayal ko waaye nag na ngeen xam ne loolu lépp ba am ba dara mënu ko saxal nag lu ragal yàlla jaamu waaye fab xéew li suñu borom fab kattanam gi gëm na may fab wéram gëm na may fab wërsëg bi na may fab xam-xam bi na may xam fab lépp di ko fooyee di ko mooy yàlla ba ne bëgg jàmm am mënta am jàmm fu mu sax jàmm yàlla ko fa saxal waaye fu jàmm sax su jàmm yàlla néew fa boo nekkee te daan fi bu ëllëgee te leneen daan ci topp lu jàmm kon dellu leen si jàmm yàlla maa ngi ko dénk sama bopp di ko dénk taalibe yëpp ñi ci réew mi ñi ci bitim réew ñëpp ak fu jullit yàlla na yàlla boole xaar te boole sàmm te boole musal ci musibe balaa yi nekk jàngale yi ci ay ay ay yi xam ak si xamul lépp yàlla na ko mën a fekk yàlla na ko hay xeex yeeg yëpp te yàlla ko yàlla fay ba na gawaj ba ñëpp am jàmm ba ba julli tax a taal a jàmm yàlla loolu daal mooy loo xam bëggoon naa ko leeral ci ñi nga xam ne maay seen jëwriñ te ñeen ñe ci réew mi ak na ko ñëpp fa seen jëfe te sama bopp laa ci jiital te ngeen jàngal gone yi alxuraan te yar leen yarub lislaam adduna du dara te doon dara mukk te kenn mënu ko def ba muy dara ku sa àdduna ku fab sa àllaaxira jaay ko jënd ko adduna du nga ko def laa bi uxraa fata man baaxa nooran bi dunya fa sayen kon sëriñ bi béyiwul dara boo lëggee du caagante coow di u ba du coow mbaa loog nun akal laayoo moom lu wax lu ma tax wax na ko lu ma tax jël ma tax bind bind ko ki gëm topp ku gëmul bàyyi gëmul weddi nag moom naka jëkk fi na ko fekk yàlla sax am na ñu ne yàlla yeeli te yeeli jaamu yàlla rek kon weddi du dara jëtte faale lu ñaaw ñaaw jëtte faale fexeel ba nit ci dëgg rek te sax ci taway ca rek te yàlla tax